mais su ma ñëwee ci président Macky Sall euh, dañoo gis vaccin yi fi mu toll nii ñoo ngi koy exiger nit ñi ba tey jii nii suñu mbokk mbër yi ak journalistes yi ak amateurs yi ñoo ngi fii ci arène national pour dem vacciner wu lan nga ñuy wax ci vaccin yi. dama ne bu dee dëgg nga bëgg a dégg Ousseyn. Mhm. Sénégalais yi nañu dem vacciner wu. feebar bu nekkee cim réew bàyyiwul mag bàyyiwul xale bàyyiwul borom daraja. ñu ne lii rek moo lay aar. Mhm. dañu war a dem ñàkku ji jeunesse bi maa ngi leen di ñaan ngeen dem ñàkku ji ki lay wax sangul sa taar la bëgg. Mhm. te vaccin yi moo lay aar man de ñàkku na mhm. te groupe Ngomés képp ku fa nekk ñàkku nga. te maa ngi dégg ñu ne combat yi même bu ubbee. képp kuy ñëw di seetaan si dangay ngay ñàkku. sa carnet de vaccin. indaale sa carnet de vaccin. kon gars yi dem leen ngeen ñàkkul loolu mooy dëgg ma de président Macky Sall laa àndal ndax ki lay wax sangul sa taar la bëgg. ñëpp dem ñàkkul maa la wax li <laughs> Ousseyn même bu nekkul loolu ki lay wax sangul sa taar la bëgg nan dem ñàkku ji mooy yoon.